mbokk yi jërë ngeen jëf di rafetlu ànd beek jëwriñ Moustapha Thioune journaliste de Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fii ci Touba jëm ci dàqub nag yi édition 2018 nag yi ngeen di gis nag yi nga xamante ni moom la Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké fas yéene jëf ci màggalub Serigne Touba gi ñu si dàq ay lim ay lim gu am solo ngir lan ngir dem fi nga xamante ni moo di jënatul maxwaa foofu la Serigne Béthio Thioune na a réceptionné li nga xamante ni moom moo di nag yi wax dëgg yàlla nekk jëf ju yéeme nekk jëf impressionnant dëgg yàlla waaw yu mel ni li ngeen gis nii di nekk nag yu yéeme nag yi nag ay lim foo ko natt weesu na ko lii lépp la Serigne Béthio Thioune nar jëf ci màggalu Serigne Touba gi Xaadim Rasul wax dëgg yàlla yu mel ni gis ngeen ko ci image nekk lu am solo nekk lu yéeme waa Touba nag ñëpp ñëw génn ngir lan ngir fexe wane seen satisfaction ak seen mbég jëm ci li nga xamante ni moo di jëfu Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tëwéer barkeb Serigne Saliou